بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول سبحانك لا حلم لنا إلا ما حلمتنا بوكو انترنت جيغا خامن نوني توك سي ودوها تي في سن بوكو الحاج مودو سيسي di nuu nuyu di len siara di am mbégte bu baax top gi nga xamné ne koy top sunu sit bi di Wadduha TV fa tay nu fasiyene ñi wak yeen ci ben kayfiyat bo xamné kibritul ahmar lañu koy tuddé tam moy lepp lepp lepp lu si jam dogu si katanu yalla yalla dana ko ko defal lépp luy aajo ak aajo bu mu manti doon fa tabarakallah bu si nit dogoo def si xasdu def si tawassul sun borom dana ko si wuyu muy yoon boo xam ne macha allah yoon bu barkel la si ñaan yàlla ñaan nag dañ ne adduha u silahul mu'min borom bi ne wa isa saalaka xibaadi xanni fa inni qarib ujibu daxwati daa'i isa daani mu mel ni ki ñe kayfiyaat boobu ay saari alxuraan la waaye ay ayaat la tamit lépp di dellu sa alxuraanul karim danga koy ubbee si fatihatul kitab ñeent fukk ak benn ayatul kursi ñetti téeméer ak fukk ak benn muy 313 salaamun xawlan min rabbi mille quatre cent soixante dix neuf muy junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent alam nasrah téeméer ak juróom fukk ak ñaar cent cinquante deux inna anzalnahu fi laylatul xadr ñeent fukki yoon ak benn suratu yaasin juróom ñaari yoon muy sept fois suratu kawsara ndaxte nakal kawsara mille fois muy junni yoon lii yoon la boo xam ne billahi la si laa ilaha illa huwa yoon la boo xam ne képp ku si wéetal yàlla dogu si deexante borom bi sa aajo yàlla dina la ko fajal aajo nag nan ko waxe woon rek da nga xam ne safaan la bëgg nga mu sori la la ak la nga xam ne yiwu la bëgg nga mu jege la yow mi soxna macha allah di sàkku njaboot baaxe naa la lii yow mi nga xam ne am xëy daf la jafe baaxe naa la ko fi tabarakallah yow mi nga xam ne yaa ngi lijjanti këy te mu jafeñ xaddiyal naa la ko fi tabarakallah ki nga xam ne bii am wéttal jafe na ko mooy am soxna jafe na ko wala am jëkkër jafe na ko baaxe naa ko lii fi tabarakallah ki nga xam ne toll na diggante diggante boo xam ne yàlla rek rek rek si man dara fa tabarakala te lepp yalla si man dara sax waye yoon yi man nay gën di gaaw sha allah baaxee nañ ko yoon bi nga xamné lepp lu si jam dogu lepp lu si jam dogu si kàttanu yalla yalla dañ ko si wuyu fatihatul kitab sha allah lepp la sunna la da koy jang ñen fuk ak ben 41 secret bu reey la sha allah nax xamna dinañ suma señu wat allahu muhammad say سكري quarante الله موي محمد موي mooy سوكو بولاي مي quarante نو نيت لا ايت الكرسي et un ñu nettali ayatul kursi nga def si jaysu trois cent treize salaamun xawlan min rabbi rahim muy aaye bu ما شاء الله allah aaye bii rek macha allah nga def ko lim boobu mille quatre cent soixante lépp lépp lépp lépp luy aju ci kàttanu yàlla yàlla manalako ci la يون لبوا خ آية لبوا خم نما شاء الله ندنا سيدف استخارة آية لبوا خم نبي ما شاء الله ندنا سيدق قلن كور وايد كي بغن يودي خيول ما شاء الله آية لبوا خم نما نكو فاي أمد ألم نصرة غدف كو سن كندر إن سنة في ليلة الخدر غدف كو كارنتة سورة ياسين غدف كو جروم يار سورة الخدر كي سورة الكوثر غدف كو ميل فوا يدفن في تبارك الله كو دق آية دي wala saar yi xam ne lépp si jaam dogu si kàttanu yàlla yàlla dana ko defal yann yàlla nangu ñaan yépp macha allah yàlla faj aaju yépp yàlla yokk barkel yëngatu yi yàlla yokk xéewal yi yàlla dàq gàllankoor yi waaye nan ko daan waxee rek ne jamono tey lépp tey la gën di bëri tey tey la gën jamono gën a jaxasoo kon fi tabarakallah euh, ordonnance yi wala yitte yi nanu si téere yàlla bu màgg bi di alquranul karim fa tabarakallah lii lan leen indiloon tey seen mbokk la Hadj Modou Cissé lu si jub nu sant ko yàlla jalla jalaaluhu lu si safaanu nu koy jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulillah